bon man sama coup de mooy lii li nga xamante ni gars yi dañ koy def si dëkk bi li nga xamante ni c'est pas normal loolu moom mooy circulation bi da nga gis nit nekk circulation def nu ko neex li nga xamante ni que kenn du ko def te buñ jógee ñu ne am nañ ay permis parce que ni tëli bi xatul xol yi si boppam ñoo xat dañ si gis nit ki nga xamante ni day nekk si biir circulation di def lu ko neex boo waxee ak moom du la faale benn nit day saw si kii tali fii ngay wax ak moom mu na la fii dëkk bi moomoo ko yaa ngi dégg loolu c'est pas c'est pas du civisme yaa ngi dégg am na nga xamante ne bokkul civisme dëkk bi bu fekkee ne dañ bëgg mu baax normal dañ koy jaarale ci yoon mais di lekk di jël ay kayit di ko sànni ci mbedd mi loolu leex nga wax buñ la waxee nga leen sama yoon nekku si ah oto yi nga xamante ni embouteillage day bëri ak surcharge yi nga xamante nit ñi dañ koy jël di ko teg si kaw oto di dem fii ba Touba

ay sénégalais noonu am na yi nga xamante ni war nañ ko mun a jomb yaa nga dégg defar suñu réew respecter suñu bopp batalo Joola mi ngi nii li ko suuf moom mooy accident rek ak surcharge bu bëri kon boog nanu bàyyi affaire surcharge surcharge dafa baaxul si nit yaa nga dégg y a des choses yi nga xam ça ne se fait pas nous on est des citoyens sénégalais dañu war a respecter suñu bopp xam suñu bopp xam ñun ñooy kan mais nag ku nekk loolu neex ngay def dugg si dëkk bi lu la neex nga def lu la neex nga wax kooku c'est pas du tout normal yaa ngi dégg bu ñu xamee ñun suñu bopp rek war nañ xam ñun lan noonu yaa ngi dégg loolu daal laa amoon li nga xamante ni loolu laa amoon si li nga xamante ni loolu laa leen di wax que le Sénégal aille en avant merci